ñoom ndax booy xool élection yi sax waa taxawu Dakar nañ gañee woon élection ya yow askan bi gañee wuñ ko ci élection yii maanaam ca dëgg-dëgg seen victoire bii dafa xaw des waroon nañu mën a gën am résultat yi gën a yaatoo nii direct news ne xawma kan waaye Macky Sall moom yëg na defetam bu rëy bi nga xamante ni am na ko ci élection locale waaye nag fi mu nii moom Macky war na jàngatee ci defet gii juróomi leçon yoo xamante ne ni sénégalais jox nañ ko ko bokk na ci moom Macky mu xam ne ni muy doxalee ci gouvernement bii sénégalais yi d'accord ci ñaareel bi moo di mu gën bàyyi xel demande sociale bii ndaxte bëri ci ay jeunes yoo xamante ne ni amuñu liggéey te ci jamono boobu Macky ci lay nekk defar ay taleeki pont te sénégalais soxla dëgg ba léegi si tontuwu leen si yéenekaay

gi ay affrontation da cee am fi mu nii may wax ak yéen réew Gambie bu Sénégal laa wax ci xëccoo gu métti nekk yéenekaay bi ne gis nga nguurug Sénégal gii bu ci teelu wax musiba gu nekk mën na xew ci àllu Casamance googu en tout bi ne ki musiba dal dëgg moo di candidat wu gëm sa bopp bii te dëkk ca duwaanu Kër Massar Nord moom mi doon def jàpp ko dugal ko ci kaso bii gannaaw ñetti fan yi mu fanaan ci kaso bi moom Dieynaba Ndiaye mujjee nañ yi ci Ndakaaru gis nga Barthélemy Diaz mën la dafa rey ba mu dee waa Benno Bokk Yaakaar waxuma la dara sax waaye la mu rawee Abdoulaye Diouf ci boppam moo bari luy tolloo 92 moom la rawee Abdoulaye Diouf ci ville bu Dakar bii yéenekaay bi ne booy xool ci ñi doon xëccëw mairie bi mën la Doudou Wade sax moo raw Soham Wardini en tout lu wér wër moo ci mairie bu Dakar bii en lu wér wër moo di bu Dakar moom Yewwi Askan bi def cee dóor dóor yi métti Jean Baptiste Diouf Grand Dakar Augustin Senghor sa Gorée lii moo may benn bokk yaakaar ñu gaje quatre communes ci biir Dakar u Ndiaye l'info yéene kaay ne Macky mu ngi def ay njàngat ci élection locale yi waaye la jaaxal ñëpp mooy ba léegi si mënta wanaasu defetam gii am ci élection locale yi yéene kaay bi di xam ne ci biir yéene kaay bi ne gis nga résultat provisoire yi li mu wane moo di booy xool ci 37 départements yu nekk ci Sénégal locale 36 yi Benno Bokk Yaakaar ñoo ko gagné loolu di ñu jox victoire bu tolloo 80 pour cent ci élection locale yii kon nag kenn warut a wax ne Benno Bokk Yaakaar dafa am défaite ci élection yi ndax booy xool ba xool Ndakaaru Njaay mësuma koo gagné naka noonu tam Ziguinchor mësuma koo gagné Ablaye Baldé ci boppam moo nekkoon candidat bi nga xam ne toujours da ko daan gagné naka noonu tam ca diwaanu Thiès mësuma koo gagné Idrissa Seck moom lañ doon wax Ndaamal Kajoor saa yi élection ko daan gagné même ca diwaanu Mbàkke naka noonu naka jekk bi ne

Babacar Justin Diagne mii def taxaw seetlu ci élection locale yii moom Babacar Justin Diagne di xam ne ci biir yéenekaay bi ne Macky Sall war na jàngat-jàngat gu rëy ci gis nga bu ko exploité wul bàyyi ba élection législative wala présidentielle dana ko coûter cher Vox Populi ne Macky kay jàngat gi mu def ci élection yi mooy moom moo gagné élection yi ci 80 ndax moom Macky Sall mu ngi xam ci biir yéenekaay bi ne 36 département laa la wax ci Sénégal gii waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko gagné te dëkk yi nga xamante ni moom la ñuy wax ne opposition bi ñoo ko gagné jamono ji ci élection yi ñun waa Benno Bokk Yaakaar musuñ ko gagné moo xam Dakar Thiès Ziguinchor ba ca diwaanu Mbàkke amul benn élection boo xamante ne nii Benno Bokk Yaakaar mës na ko faa gañe kon nag coow li jarul muy bari Macky Sall ci biir yéenekaay bi dellu siwaat ci coow góor jigéen yi nga xamante mu ngi lëmbe réew mi moom président de la République am ci naqar loolu tey xamle ne il faut que ñu arrêté débat bi nga xamante amul benn njariñ man changé sama position sama kàddu démb te mooy loi bi nga xamante moom mooy sanctionné góor Sall bi laa la wax kenn du ko soppi feeg maa ngi nekk président de la république waaye nag gis nga coow li dafay bëgg ëpp ba fi toll nii dañoo bëgg a yenn ci ay kilifa diine jaxasee ñoom nitu diine yii waaye man Macky Sall dinaa ko régler ndax dinaa santaane fekki fan yéene ki samay collaborateur ñu dem ba ci këru diine yii gën leeral position état bu Sénégal ci coow góor jigéen yii comme ça débat bi mën a jeex enquête yéenekaay moom def taxaw

yu métti ba futu ci def ba noppi daal di tëj débat bi ne gis nga coow li jërutoon mi yegg ci biir jumaa yeeg jàkka yi bañ ciy xutba ndax man sama position leer na mën na la loi bii duñ ko mësalaal fekk maa ngi nekk président de la république kon nag lan moo tax ñi ñuy jaxaseeg sénégalais yii Macky di xamle ci biir yéene kaay bi nag léegi nag doy na sëkk ndax mbir yi mu ngi bëgg ëpp loxo te sax nag yëf yi dafa rax politique ba ñenn ñi def ay vote sanction ci élection locale yii <laughs> ki rassur yi lay kenn ma ki Sall lu mu dugg mën na cee génn baax nañu yéen ak jàmm ba su ak jàmm incha allah